Sénégal de jamono yi ruq bu ne lay tàngee foo yaakaar ni moo gën a metti rek boo gestoo gis beneen cas coowal astu soxna ak sage-femme yi mi ngi jël proportion yu inquiétante démb rek tëj ràpp la ñu def maternité yi kenn xamul foo jëm jaxlé ak titange la jigéen yu wérul yi yendo demb ginnaw ba di sage femme yi ab décision ni dañuy observer grève té duñu rewle bénn jigéen ñi di patient yi nak ñu ci ëpp ci ñom ci ay clinique lañu mujjé ñi amul moyen yi nak tour hôpitaux yépp def nañ ko ngir rek mëna mucc mucc Touba Ndiaye fofu lañ jaar ñu yegg ñu né da ngeen di dem Louga ñu dem Louga yegg ñu né ti dañoo ñu Louga ñu daan nañu ayo da ngeen di dem directement Ndar ñu ñëw ak suñu malade and ak jafe-jafe yoon wi jafe-jafe xaalis ndax bu ñu jógee ca kër ga yaakaaruñu woon ne dañuy yan si man sept heures laa fi ñëw ba léegi sama malaat sax génnagul wax dëgg yàlla sa suba ba léegi ñoo ngi fi fii la ñu fanaan sax sax moom bu sañoon malaat day wér rek waaye du du tëdd mukk xam nañ ne lii gerew bi metti la def ndax

parce que nit ñi tamit ay êtres humains lañu nit bo mënoo ñoo ëmb ëmb lu mu méttee nga wara accoucher ñi lay né tay journée noire la la mooy la moy la moy journée noire au fait lan moy journée noire. am Ndiaye indi job gi nak taxarnaase na lolu ci seen diggante ak sage-femme ñom population bi sax japp nañu ni ñi di sage-femme yi nañu domp néew. waye nak buñu généraliser ndax amna ñenn ci ñom ñoo xamante ni ànduñu benn yoon ci seen mouvement bi dañoo trouver ni sax c'est aller trop loin. raison garder nous nous sommes nous travaillons pour la population s'il n'y a pas les femmes les sages-femmes n'existeraient pas. Donc, à mon avis, à mon humble avis, je pense que on devait aller voir les populations, discuter avec eux et ne pas faire, trouver une autre manière et ne pas fermer les maternités. Confronter ces populations parce qu'ils ont raison. Deug la solidarité de corps lu bax la waye est-ce que corporatisme ou est yegg ci le niveau yi. un tel extrémisme da fay melni rek luy prouver ñak empathie biñu len di jiiñ. tax rek ñuy où est passée la passion du métier. actuellement il se pose un problème de débouché je suis bachelière les universités sont bombées il faudrait ma famille compte sur moi il faudrait que j'aie une profession. Il y a plein tort d'école. Même aujourd'hui, tu es boulanger, tu peux ouvrir une école. Il est temps d'assainir le milieu. Parce que sans formation, on ne peut pas être compétent. Sans formation de qualité, on ne peut pas être compétent. assainir ko deug la sax lu war la mais en attendant état bi war na jël solution ci li ni mel bala mo jur musiba. grève nak droit constitutionnel la nangu nañ ko waye dafa am lo xamanteni moral sax moko dul nangu waroon nañu mën wut rek benen stratégie ngir woni sen naqar Ñom sage-femme yi nag li ñu jàpp mooy tutelle bi di Abdoulaye Diouf Sar nañ ko wax dee daf leen ci vindicte populaire bi dafa leen abandonner wala sax dafa fuir ay responsabilités am nak nag lep menane. mën nek waye waaye rek lañuy waxtané dé duñu juge jéemuñu condamné kenn mais nak négligence médicale lu yag la fi ci Sénégal nañ ko wax rek té dé il faut rek ñu wàññi vision partisane bi xoolante dans les yeux jouer carte sur table buñu bëggé indi solution ci jafé jafé waxu ñu nak ñom ñëpp payam mais le mal est là même bu fekké ni sax ñom sage-femme yi dégagé nañu seen responsabilité ci mbir ma xewon ci hôpital bu Louga ndax nee du ñom ño sooke li nu mel waye luñ mu ci mënti am yoon mi ngi def liggéeyam té amana dina aboutir ci quelque chose mais en attendant ñun li ñu ñor du lolu waye waaye seen décision bi ñu jël dem ngir tej maternité yi lañu xamul fan lañ ko teg deug la seen conditions de travail metti na on avoue précarité bi ci secteur bi tamit umpul kenn té batay duñu jog ci interpeller nguur gi ngir mu wut ci ay solution ndax kat askan bi rek ño ci